ngi tudd Moustapha Sylla nekk maire commune Niakhène nekk également au conseiller au conseil de la république ku ne xam waaw di sant bu baax tous les responsables du département de Tivaouane à commencer par le président Diagne Sy président du mouvement Tivaouane ba faw mais également un grand responsable di euh, sant bu baax tous les responsables des 18 collectivités territoriales de du département de Tivaouane lii rek la ñuy woote parce que nag dañu jëm ci échéance yu am solo muy élection présidentielle ku nekk xam na ne président de la république Macky Sall ak liggéey bu solo liggéey bu am solo bi fi def dans tous les secteurs mu dem sàmm kàddoom sàmm ngorom ne man kat maa leen waxoon ne du ma def troisième candidature damay respecté sama kàddu waaye nag am naa ku ma am yaakaar ci moom ma joxoñ leen ko muy Amadou Ba ñun ñëpp ci département Tivaouane ñu àndanoo ne a à Amadou Ba oui a une victoire au premier tour kon loolu mooy war rassemblement bu toll bi ñu woo responsable département yëpp man maa ngi jógee euh, commune bu Niakhène ku nekk xam na taxawaay commune Niakhène ci résultat yi département bi di am ñu nekk fi ci département di Tivaouane commune Niakhène dafay am résultat boobu honorable entre 60 et 64 pour cent loolu nag la ñëw ci rassemblement bi di leen wax ne ñu ngi leen nañ ko daan defee ci commune Niakhène noonu lañ koy defee rek incha allah suñu ca àggee incha allah danañ ko assurer nañ ko daan assurer au premier tour pour notre candidat ah, Euh, fan yi gis nañu Macky Sall fal gouvernement en tant que Bassirou Kassé département de Tivaouane gis ñu ci kenn kuñ ci fal yow. nous devons insister et persister. waaw ah ma nga baal ma ma jubanti tuuti rek ah kay département de Tivaouane am na kuñ ci fal ndax euh, docteur Mbengue docteur Mbengue ministre des transports aériens mu ngi jógee Morolan Morolan ci département Tivaouane la bokk. lu jiitu loolu département Tivaouane am na ay directeur département Tivaouane am na ay élus département Tivaouane am na ay ministre département Tivaouane am na ay représentant ci secteur yëpp kon le président Macky Sall fàttewul département Tivaouane waa département Tivaouane nag ñoo war a jógaat delloo njukkal président de la république wante nag soññiwaat ñu nekk ci état bi ñu gën ñu bàyyi waat xel ci investissement yi gën ñu bàyyi bàyyiwaat xel ci infrastructure yi rawatina nag rawatina nag tali bi nga xam ne mooy jógee Ngaay ba dem Cilmaxa boobu wax dëgg yàlla bu ñu ko defalee lu yombal liggéey bi lay doon wante nag tant que defaluñ ko ah du ñu ne du du du ñu liggéey de waaye dana xaw a jafe lool.